mbokk yi ñu fas yéene waxtaan ci lu gàtt ni ma ko waxee yeneen xeet yépp nag yeneen waaso yépp maa ngi leen di nuyu ci sama xol ci seeni làkk waaye di leen wax nag ni lii rekk mooy Sénégal bokk na ci li mu gën a neex man mii lu raw Pastef en tant que parti waaye man mii en tant que personne li ma gën a neex ci sama engagement politique mooy dafa daaneel ay barrières tey ku gis daje bi doo fi xàmmee ku jóge Fuuta ku jóge Casamance ku jóge Bakel ku jóge Fatick ku jóge kawlax ak ku jóge Diourbel ñun ñépp benn lañu bokk ndey bokk baay waaye surtout ñu bokk lii nga xam ne moom lañu yàlla booleel muy dëkk bi tudd Sénégal ñun nag senegal rekk a ñu ñor senegal don moo ñu ñor may teg ci nuyoo gi kilifa gi nga xam ne mooy kilifa commune gi da dalal ñu di sama frère di sama xarit monsieur le maire Barthélémy Diaz moom mi nga xam ne moo joxe autorisation ba ñu mën a daje fii tey di leen nuyu yéen les frères et les sœurs patriotes tey seen bés la tey ñun ñoo leen di delloo njukkal di nuyu ñi nga xam ne nag dañoo ànd ak ñoom ci politique bi te bokkuñu parti waaye dafa mel ni tey ñun ñoo bokk parti muy ñi ñu bokkal ci coalition damay bëgg yéen waa Pastef nañuy bàyyi toujours xel di jox cor cër gu rëy ñi ñu bokkal coalition parce que it que it gënuñu leen ëpp ñu leen xel ëpp ñu leen xalaat bu ñu ñëwee nangu ànd ak ñun waaye sax ci biir ànd gi ñu nangu ñun ñu jiitu ñoom ñu tegu si loolu cër la guñ ñu jox waaye du luñ leen ëppale ba tax loolu di am sànq docteur Abdoulaye ñaan dafa wax ci turu coalition bi daldi wax lu rafet ci sama jëmm waaye damay faral di wax ni moom mi wax ci turu coalition bi lu mu wax ci man rekk ci moom la gën a yelloo ndax dañoo bokk promotion ENAM léeg-léeg dañ naan Sonko dugg na génn nekk premier ma leeral ni ba ñuy dugg maa nekkoon premier waaye ba ñuy génn moom mii moo ne woon premier ñu bokk doon liggéey impôt mu jóge fa ma jóge fa ci anam yu wute tey muy expert fiscal may expert fiscal muy professeur di jàngale ba Bambey yor cabinet kon kooku bu taxawee ne topp naa ci gannaaw usmaan Sonko dafa gëm yàlla nangu li yàlla dogal ba pare nangu wàcce boppam noonu mu amee ci moom la amee ci ñi toog fii ñëpp muy professeur Sall bu MRDS di professeur à l'université de Bambey muy euh, euh, Adja Blondin Diop ingénieur en télécom muy Goudiaby bu Dakar Dem Dikk syndicaliste nga xam ne ñépp xam nañ ko jarul ma koy présenter muy Jiméra mi nga xam ne moo fi toogal suñu naataangoo yoonu askan wi di Madieye Mbodj kenn du leen présenté ak ñeneen ñi ñu fi teewal ñëpp parce que coalition bi yaatu na waaye it personne ressource yi nga xam ne neewuñu ci biir politique ñëpp naw leen ci combat de principe bi ñuy def fii biir Sénégal te ñu am ci ñoom lu kenn amul defe na parce que mun nañ ne bokk nañu ci les rares yoo xam ne bu ñu wootee ñu ñëw toog ma ci cité suñu doyen Mody Niang mii toog ñoom Adja Yacine Fall ak ñeneen ak ñeneen mënuma lim ñëpp dama bëgg toujours ñuy fàttaliku ni ñooñu dañoo ànd ak ñoom ci politique ñuy suñuy nawle di ay gor nu nit ñu war a ji ngir ngor suñu digganteeg ñoom looloo andi ba ñenn ci ñoom gis ni war nañoo mën a passer sax beneen étape mooy nu ñuy def ba lépp ñu dajale ko mu doon benn kuréel ak benn parti politique di rendre hommage particulier nag ak ku ñu tudd léegi muy doyen Alla Kane su ma juumul nu mu tuuti tuuti war naa nekk ci 83 wala 84 yàgg ci politique fekke jamono clandestinité def prison ñu rajee ko ci fonction publique ñaari yoon ba tey jii mu ngi ci xeex bi te fu muy dem mooy dawalal boppam otoom di xalaat di bind inspecteur des impôts à la retraite kon ma bëgg mu doon modèle ak exemple ci ñun ñi nga xam ne ndaw lañu dañoo wax nag anniversaire mooy tey am nañu juróom benni at bu doon nit nag ñu ne lu gàtt la ñu war koo mën a wax nag ci parti politique tamit ndax parti politique juróom benni at ci loo xam ne ba muy sosu du lu fi nekkoon ba noppi parce que léeg ñu essaye ñu comparer ak yeneen acteur politique mës naa dégg ci benn émission boo xam ne booy séeréer ñu koy wax sëriñ Gundu alaaji Diomaye fay moo ca demoon suma juumut mu wax fa ni la ñu def door ko ci premier expérience ñu am ci quinze virgule soixante et pour cent musuta am journaliste bi ne ko Moustapha Niass amoon na 17 pour cent wala pour cent ci première participation waaye koo xam ne indépendance ba 2012 yaa nga woon ci politique doog génn sos sa parti bokkul ak ñoo xam ne ba ñuy daje doon juróom wala juróom-ñett ci néeg ne dañuy créer parti politique amu ci woon kenn ci ñoom koo xam ne mës naa def politique amu ci woon kenn ci ñoom koo xam ne bu taxawee jàkkaarloog sénégalais mun nañ ne kii xam nañ ko 2014 bu ñuy créer parti bi boo génnoon taxaw ci biti ne am na parti politik bu tudd Pastef wala nga ne rek Pastef dañu naan xanaa ab daayira la waaye duñu xalaat ni parti politique la boo taxawoon ne ka jiite parti bi Ousmane Sonko la tudd dañ la naan foo kook fu mu jóge kon loolu bokkul ak ñu newoon ci politique nekk ci parti politique bu mag di fa raam ba parti ba am tur nga nekk député wala nga nekk ministre ministre d'État premier ministre profitoo ci nag loo mën a teq-teq ko dem denc ci ay compte boo demee ba ne àndatuma ak ñoom génn créer parti politique ñaar yooyu bokkuñu kon parti bi ni mu sosoo ci boppam mooy premier signe distinctif lu ko wuteleeg li ëpp ci li ñuy tudd parti politique fii ci senegal ma ne ci historique bi lu gàtt ba ñuy daje ñi njëkk a daje ne dañuy def parti politique man mii di wax a ngeen fekkewu ko bokkuma ci woon li ëpp tey ci ñi ngeen ràññee ci parti bi fekkewuñu ko woon bokkuñu ko su ma juumul ci ñi fës ci parti bi mennum Matar Sène mii moo bokk ci ñi nga xam ne daje woon nañu entre ñoom ci njëlbeen ba ne dañoo bëgg a créer parti politique. ba ñuy ñëw di ñu fekk si ñun ñëw jël si ñu ne dañoo bëgg ngeen ñëw bokk ci suñu projet parti politique boobu demoon nañu ba retenir sax date pour dem assemblée général kon Pastef est parti du néant politique dara new fa woon bi ñuy sos parti ba ñu daje waxtaan waxtaan ba jàpp dat dem le 4 janvier 2014 amphithéâtre université pour amphi ba mën a xaw a fees tuuti sax kenn ku ne ci ñun la nga xamoon ci étudiant da leen woo ne leen booy ñëw leen rek ci salle bi parce que tamit dañoo war a caméra bugg ñu ne salle ba ñetti nit a fa newoon noonu la amee un euh, këram wala une salle boo xam ne defe naa quatre-vingt-quatre personnes ñoo fa woon ci assemblée générale boobu ñu taxawal parti bu tudd patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. li andi woon nag motivation bi tax ñu dugg ci politik looloo leen fi andi yéen ñëpp mooy toogoon nañu ba gis ba yéeg suñu bopp ni mënuñu bokk ci réew mi juddoo fi yaree fi màggee fi la ca ëpp ci ñun wala ña fa nekkoon ñépp sax bu ñu demee ba am daraja bi ñu am dafa fekk réew mee ko jox parce que ci école publique la ñu jàngee depuis école primaire ba université génnaat ñu ci bëri ci ñun di liggéey ci état mooy sénégalais bi yow mii toog ak yow mii ak keneen lépp ngeen di fay moo ñu doon fay salaire ñu am nag chance di gis lu sénégalais yu bëri dul gis di xam lu sénégalais yépp dul xam ci li gàllankoor réew mi ci yorin gu ñaaw ak ñàkk gis-gis ñu dem nag ba jàpp ni am na fu nit di tollu bu dee gëm na yàlla am na question bu semple boo xam ne il faut mu répondre ci ndax damay doylu rekk ni man maa ngi sant yàlla tedd na inspecteur des impôts la wala du trésor wala douane la nekk wala magistrat la wala avocat la wala commerçant la boo xam ne macha allah yàlla defal na ma wërsëg wala entrepreneur la wala enseignant la ak loo munti jël ci ay liggéey yoo xam ne yàlla defal na ci nit barke nga nekkoon sama yoon nekkatul ci la ca ne wala nag da ngay dellu si ne nag. yàlla bu la tànnalee réew mi di Sénégal dafa am lu tax li tax mooy kenn ku nekk ci ñun dafa am responsabilité responsabilité defar responsabilité dindi fi luy yàq kullukum ra'in la xadis bi wax kenn ku nekk ci yéen sàmm nga te nag yàlla dina la laaj ci li la waroon sàmm su ñu nee sàmm nag mi ngi door ci boroom kër gi responsabilité kër gi la jigéen gi sëy ci kër gi responsabilité mooy sàmm alalu boroom këram maître d'école bi responsabilité mooy xale yi ñu ko dénk sëriñ bi responsabilité mooy taalibe yi ko topp fonctionnaire bi responsabilité bi mooy contrat bi mu signee engagement bi chef d'état bi nag engagement mooy réew mi